wax liñ ci mën lépp dugguñu ko dañuy dal di am masuuliya bu rëy boo xam ne ëllëg bi ñu leen laajee ci lay du ma gannaaw nit ci moom yàlla jox na ko lu mu xam yàlla may na ko sédd na ko tuuti ci xam jamono bi ni mu demee xam yàq-yàq yi te jéem a taxaw ci xale yi ñëwagul ndax man ñi sax bari na si ñoo xam ne rëcc nañu ndax am na yu bari yoo xam ne te mënut leen caa dugal waaye xale yi soog a jóg nga xam ne musique rek a nekk seen bopp football rek a nekk seen bopp ñu indi leen yeneen yoo xam ne yu yàq seen islam ëllëg la lu leen di tax soree li ñu bëgg te mu di leen jëriñ ëllëg li ñu bëgg ci ñoom moom la te loolu li ëpp doole ku wër bëgg ko dajeeg moom kon bi ñu am ñu sax ndax boo liggéey fii di dox bala ngay dox kilomètre da dal di gis mbooloo moo xam ni nii nekk luy taxa a fàtte yàlla rek te mooy li ci yées mooy mooy luy fàtte loolu nit ci yàlla te loolu kon dara jiitu ci po boo nekkee ci po waxtu jotee saxel bi ca dem boo nekkee ci musique bu waxtu jotee saxel bi ca dem leneen lépp loo xam ne ni day dox diggante nit ki ak yàlla ko ko fàtteloo mooy mooy yi gën bon te yooyu nit ñu defarul ñoo ca nekk te ñu ci defarul ñoo gën a bari kon nit ñu defaru gannaaw ñun bariwuñu féewoo jigu leen dañoo war a def seen bopp benn dañoo di soxante xalaat di bokk lu ñuy fexe di ca ànd kenn ku nekk def ca la nga mën lépp bu ko defee ñu sellal mujtama bi ba dimbali bi nga xam ne moom nga dimbali sa doom bu juddoo te wóor lee da ngeen di layoo ëllëg yii da ngeen di layoo yarloo ko yaru islam ndax ci li ko ci mu baax ndax jaarale ko woo ko ci yoonu jub ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne tay nañ ko koy mbir yooyu yëpp ndax teewalu ne ëllëg da nga koy lay wax te bëgguloo mu lay la te itam bu loolu yëpp ñëwee wax koo xamee ne tàggane nga ko mu nekk ci mujtama bu yàqoo yàqoo yàqu bu ëllëgee ba yàqu bu mu yàqu moom da nga ca am say masuliyaat yoo xam ne day dal ci sa kaw lool te bu ëllëgee itam da nga dana waxtaane ci kanam tuuti yaru lislaam nga am sa doom yàq ko ëllëg boo fi jógee lu mu lay jëriñ kon nag jërëjëf Ibrahima Diallo mbokk yi waxtaan wi nag mi nga xam ni noonu la ñu fas yéene wéyal ko tey ci guddi gi di waxtaan woo xam ni dañ koy def ci Serigne Sambay tey nag seere yoo xam ni dañ ko bëgg dëgte suñ mbokk yi dellu it di sant ñi nga xam ni teew nañ fi ak ñi nga xam ni woote nañ fi di Serigne Cheikh Niang Euh, di kilifa diine ca ak sëñ de Samb di conférencier moom it euh, te li taxoon sax ci waxtaan dafa demoon euh, Daaru Salaam naka ci màggal gu am solo googu nga xam fay am te ñàkkul it dina woote moom it ci Serigne ak moom it koy sant bu baax ci woote gi nga xam ne na fi ak ñi nga ne 41 22 65 di indi seen seere ci liggéey bi nga xam ni Serigne Sam Mbaye def na ko sëñ Bouchra Samb yaakaar naa ni it moom la ñu bëgg a déglu ci seere yoo xam ni dañ ko fas yéene def sëñ Bouchra. bisimilah waaw ñu ngi lay sant bu baax. jërëjëf waaw. bisimilahi rahmaani rahim. wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama inna lillahi wa inna ilayhi rajiun salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëñ Lamine noo ngi lay nuyu bu baax diine akuk cofeel ak iraadatu mook bokkam yépp kum bokkal baay kum bokkal ci ak ñépp di rafet génnee àdduna bu génnee jamono képp koo xam ne kii loola jàqloowu la naafiq nga jàq ga nag ak tiitaange ja moo tax sun borom naan wa bashiri saabirina alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu tubaab yi wax sa remettre à Dieu faaw nag da am as tiitaange door a dellu nag ci yàlla wane ne yàllaa fi sës noo ngi lay dénkaat sunu bopp wa ulaayka alayhim salawaatun rabbihim wa rahmatun wa ulaayka humul noonu ko sëñ Saliou sa waxee ak sëñ Ahmed Loum sëriñ Saam nag jëmm la joo xam ne ji euh, jëmm ju multidimensionnel la jëmm ju baaxoon ci jamono la moo nekkoon na combattant boo xam ne bii mboolem ñi nga xam ne bëggoon nañ ko te daa ko déglu iite na leen maanaam samp na leen ci sàppe si seen tànnee fi jamono ngir waxam ju dëggu ci moom waxam ju rafet elokaasam pertinaasam fasa def na ci mbir yu rëy rëy ndax yàlla dafa dogal mu làkk yu bari dégg leen dégg gu wér moo tax xaritu sëñ abdoulahat mbàkke la di associé à la première heure ci xilaafatoom bi mu jógee te xam ne ku bëgg a dimbali nit ñi da nga yee jeunesse ba am une shababatun waayatun mujtahidatun aadilatun sëriñ Abdoul Ahad ni mu bëggee une jeunesse équilibrée une jeunesse saine une jeunesse éveillée dafa daal di teg sëñ Saam loxo mu jàppale ko ci traduire téere yu bari ci fànn yépp téere tub yi téere diine yi téere pratique yi islamique yi loolu lépp mu def ko ci yoon wi mu jaaxit la joo xam ne ci wër na adduna bépp barab bu ne barab bu lëndëm bu ne taxaw na fa taal fa leerug lislaam gi taal fa leerug dëgg sëriñ saam jógu euh, doomu aadama ju ne nag kuy xëyle wala ku jàng wala ku gont nit nag waxtu wu làq juróom-ñaar fukki at lu mu ca teg bu génnatee àdduna sax xëyul jàngul dafa gont waaye moom ngontam mi moo gën a metti am xëy li naar ba waxoon ci mars yëpp sëriñ basiiru ba ni walaw kubilal fidaa u fadat murdu wa qalla fil fidaa'u lahu shibu bu fekkonte ni yàlla nangu woon na jot ci jullit bu jeexal kon sëñ saam da nga gis ndaw lu saxagul sikkim nangoo di di dese lim fi bàyyi ci ay jub ak i ishaaraat ak i irshadaat ak i kitaab ah di ko nun mom moo doonoon sunu source moo doonoon sunu kilifa mom sëriñ saam nun ñëpp ko daan déglu def ci moom référence nun ñëpp la amon ci nun cofeel ngir amoon ci nun yaakaar ngir ni mana naa am bu ëllëgee bàyyi na fi ñoo xam ne ñii au moins bu mënut lim man itam danañu góorgóorlu bu baax kon noo ngi lay sant yow itam lamin ndax propagé nga bu baax a baax liggéeyam ci kii bi utal ngeen ko tranche spécial buy jàll ajjuma ju jot ngeen di jàllale ay waxtaanam mu neex réew mépp neex jullit yëpp presque émission boobu mooy bi nga xam ni moo ma gën a cher ci rajo Kaolack ndax cassette bi ngay jënd di ko déglu sa néeg bokkut te paragraphe bi jàll ci rajo rajo moo mel noonu wasailul ihlam yëpp waroon nañuy def loolu dégg di jàllale ay waxam waaye gis nga yow la yàlla jëkk defal tawféexu nga créé ko ci sa rajo di jàllale bis bu yàlla sàkk euh, euh, ay bis bu ne ay waxam te loolu lu rëy la noo ngi la ciy sant bu baax di ñaan itam di la ñaan loolu yàlla nañ yàlla na ngeen ko wéyal bu baax ndax ndegam bi muy dund lañ ko soxla woon sàkkaa bi nga xamante ni bi yàlla làq na jëmum ci sell ga tey ci ko xeet wi ak jeunesse bi ak mag ñi ak diine yëpp gën a aajowoo noo ngi koy jaar ci diine yëpp noo ngi yemale foofu ndax leer na ma ni antenne bi am na ñu bari ñu ko soxla wasalaamualeykum wa rahmatullah waxtaan wi nag itam daf ma bett na ma lool bi ma dikkee sax nee nañ ma woote woon nga bi mm-hmm. waaye dafa fekkoon ma dem Daaru Salaam mm-hmm. ma dikkee itam àndaale ay coono taxul ma ma mën a rappale mm-hmm. waaye xaw ma woon ne ndekete lu am ahamiya nii lu amee nii solo nga nu doon doyee ndekoon insha allahu taala lu nu sonn sonn sonn danañ jéem a agsi waaye mu itam noo ngi fi te nekkal leen fi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf